tey fii ci Gueule Tapée di maire commune bi ñu koy laaj monsieur le maire tey lan lay wax mbokki ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ban kàddu la leen di wax ak ban message lay lancé ci julli gi. waaw wax nañ sant yàlla bi mu ñu mayee ñu weer weeru koor bi ba mu jeex ba mën a julli tey euh, bésu tey bi ah, di sant yàlla di baalu àq nag ñëpp di baalu àq waa Gueule Tapée Fass Colobane yëpp di baal aussi ñëpp àq. waaye yaakaar naa imaam ku déglu xutbam bi doy na na nañu jàppante nañu yërëmante nañu na ñu wékku si yàlla nañu nangu ndogul yàlla loolu daal laay dénk sama njaboot yëpp buñ ko defee rek yàlla yóbbu ñu kanam incha allahu rabbi ñu gis ne daaw it da nga ko defaat ren nga ñëw defaat ko te ngay maire commune bi mun a jullee ci jàkk yu bari lan moo la indi nga julli tey ci Gueule Tapée bu rombee dëkk gi nga fi dëkk. waaw ah, ah, ah, ala pe ala pencub maam nag. ala pencub maam baab. parce que fi laa bokk. xog la ñu jógee. ñëw nekk fii si xog. dem Colobane xog mais comme xog bi moom a gën a jege ma julli ci xog bi. loolu mooy loolu mooy dëgg. parce que aussi fu ñu nekk surface am na ay maire yu ma fay représenté adjoint yaa ngi fa di ma représenté Colobane aussi adjoint yaa ngi fa di ma représenté comme man nag fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii la ma nit ñi xamee fii laa soso fii laa defee lépp sama kër àdduna yakaar naa ne am na tey da war naa am tey ak yitte ba nga xamante ne lépp lu ñuy def fii ma ñëw teewee ko te loolu mooy sama loolu mooy sama cër su ma ko deful rek